feebar bu gars yi naan ay affaire bota yi luy tuur ak loolu demewul noonu feebar bi salte la salte moo indi mool bi day dem géej 11h si suba lay dem géej bu demee 11h si suba géej bu ñëwee du xooj ay yérem du sangu li ci ëpp nag gendar yi ñëw fi ñëw moo ñu jigéen ndar ñoo ñëw fii ànd ak indi feebar gaal yi ñu fi ëpp ñoom kase ñoom feebar ñun ñii ñu ngi nii géej laa jigéen ñi feebar bi ñoom kase kase la amul kenn dégg nga fi ne nii te géej laa jigéen ñi. am na ñoo xam ne ñu ngi seen i boo leen xoolee da ngay xam ne feebar bi ñoom la da nga gis seen yaram nit amee feebar bi tëngij laa jóge parce que feebar bi ñoom kase la du kenn salte la